ñu ngi fii ci diwaanu Kaolack nangaan yaakaar naa ne tey jii buñ fi ñëwee ci làmb ji mag jii fi am ñëw ci ki nga xam ne ni tey jii mooy bi tey nga xam ne mën nañ jëppee bu mag bii nga xam ne nii am ci Kaolack nangaan diggante bi Baye Mandione ak di Bébé Saloum mu nekk combat boo xam ne tey jii buñ koy yóbboon arène nationale gi si fermé lay doon waaye tey amateur yëpp dañoo wàllyante ñëw Kaolack waaye dañ fay ci Demba suñu papa mi nga xew ci jamono Père Dégol

képp kuy góor ba moo la ko jaral moo tax ñu ñëw bisam parce que nit bisam rek la am damay bugg sama njaboot képp ñëw waaw loolu nag bëggoon naa bëggoon naa cee wax ndax dama gis ne da nga ànd doom ak say njaboot ñëwul Pape te yaakaar naa ne noonu nga ko defee noonu ko ñu ba defee lan moo nekk sa diggante Pape Demba bi tey ci réew mi ba tax loolu am waaw nit ku baax mm-hmm. te ku baax ku baax ngay wuti te mag ñi tamit dañuy wax booy wut wutal ku baax waaw Pape Demba Bitèye kenn la si Kaolack kenn la Sénégal jàppale nit ñi di jàppale jumaa yeeg jàkkee kilifa diine yi xewul kenn nekk ni ko ewte kilifa la ba nekk ko ewte boppam te loolu yàlla ko wax yàlla moo ne boo wàccee sa bopp mu yëgal ñun li ñu mën si moom mooy ñaanal ko yàlla moom gudd fan ak wér ba mu bëgg a def fii si Kaolack ak Sénégal mu def ko. di hmm. nga président de la République parce que ñi ma ragal fee féete day xëy na wërsëg. Hmm. waaw man ku bëgg jàmm si réew mi lay àndal te man président ko parce que moom laa xam mooy ñëw di vacances si ñun si Pikine wax naan nekk ah, élève bu vacances si ñun ak Ablaye Timbo. ba tey yàlla dénk réew mi mhm. kon boobu lu gën a jege suñu kon bu amee ay éléments si mhm. ci ñoom laay ànd ñoom laay jàppale mhm. waaw parce que suma nag Pape Demba Bitèye di sama nit di nitu bàyyi si booy ñaar Mhm. bu xewle ñëpp gis nga équipe bi yëpp ñëpp a ñëw tey waaw ñëpp a ñëw parce que moom moo xewle Pikine kenn desul tey waaw Pikine kenn desul Sénégal sax kenn waroon des <laughs> ñëpp waroon ñëw ah waaw ñëpp waroon ñëw mais am na bu mag bu ngeen jëm yéen waa Pikine waaw loolu loolu seen diggante ak roi des arènes waaw loolu ñu ngi ñu ngi si ñaan yàlla ah, yàlla ñu ñu ak seen jàmm ak hmm, salaam hmm. yàlla may ñu wér hmm. comme laa mën a ko rek bu ko ñu xaw

Ah, yàlla may ñu si ndam parce que ñun yoruñu ndam ay ay ay nit yu kii lañu yàlla moom ndam mu ngi talal loxo yàlla di ko ñaan ndam si barke borom dëkk bi Baye hmm? si kàttanu yàlla yonent bi ñu koy ñaan si kàttanu yàlla yëpp waaw ngi ñaan loolu booy yàlla moom nii la ñu àndal gunge ñu ak ay waaw ñi booy ñaar doon bëreel yëpp dañ ko doon dégg mu a dama leen a xam. Mm-hmm. ku ci mel ni Balla Gaye. waaw loolu moom dégg ko benn ma ne la bu ko lee. non am na kan Modou xam nañ ko mais ko mu def ñu ko. mais Père de Gaulle Père dafa mel ni le roi des arènes da nga ko jox cër mais nit doomu aadama doomu aadama ko war a jox cër. mais heure bi fekk na nga dox ci kaw may na Balla Gaye bu yàgg kooku heure bi fekkoon na déggul dox ci kaw maay nu Balla Gaye. waaw ba esprit yi bokkul. a a yomb bëri ñaar ak Balla Gaye de kan moo gën a neex bëri. Ah, li ma la wax de. dégg a neex a bëri. moo daan Modou Lo. Balla de. ñaata yoon. ñaari yoon. ku daan Balla Gaye. Boy Niang numéro 2. kon pexe. mais ndax qualité nek fe ak qualité nek nekk mais qualité bi bu bu bu amul bu ko mënoon def fee daan ko daan Balla hmm? mais mais mais mais mbër daan na Balla Gaye Modou Lo daan ko. wa yo ma sen lol la ñu musical loolu mu ngi si kanam ñun daal ki nga xam mo moyon ndam ñu koy tal suñu lo mais Père de gol gi ni bëri mbeur mo xam mbeur Pikine mës ta am ci moom ndam ci arène. déggoo li ma wax. mbëru Pikine mës ta dégg loo Lo muñal yàlla nañu yàlla def rek ñun mbëru Pikine. mais waxal ci qualité Modou Lo boobu. non lu ma ci qualité non mais mais Père Dogo li nga war a wax. lan lay wax ci qualité bi. ah Modou Lo amul benn mbër mu dëkk Pikine. qualité la nga xam ne moom la booy ñu def magam. waaw daf ko daan booy Modou Lo da ko daan ñaar yoon. waaw waaw waaw mais rek. boo ko la nga ne ma seen ñaar yoon la Balla Gaye boo boo ba ma seen ñaar yoon. Balla Gaye kii Modou Lo. daan amal seen. ñaari yoon. waaw ñoom seen biir dañu daanante rek <laughs> mooy fii VIP amatu fi de. Ah. Ah, yëpp la ñuy dindi sànni ko fële si kàttanu yàlla ñun. kon jàppaay julli bi màgg na. waaw màgg na si kàttanu suñu borom. lan moo tax combat bi taxaw rek mu ne lu mu lëndëm lëndëm bukki for bi. waaw léegi nañ dem rek. nañ dem nañ dem si kàttanu yàlla loolu bokk paa bi dama léegi wuyu téléphone waaw ñu ñaan yàlla si kàttanam si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla ma ñu ndam si Modou Lo si kàttanu yàlla si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Abdou Khadir Jeylani barke Cheikh Amadou Fall bés bu ne dugg si waaw wallaay wallaay ci roi yàlla ko fekkee jàmm roi des arènes ci roi yàlla lañ ko fekkee jàmm tey mi ci njom wallaay wallaay bu dugg si nga xam ne ko Cheikh Rim bi dugg si na si kàttanu yàlla ak yonent oh. waaw ñun Pape Demba. Pape Demba waaw di gërëm ñu uh-huh. di gërëm Niass. di gërëm ñi nga xam ne ay nitu bitim lañu. Uh-huh. waaw jërëjëf ay nitam lañu. Uh-huh. nekk fii ko jàppale guddi bëccëg docteur maa ngi lay ziar bu maa ngi lay bu baax a baax. di nga ñaanal gudd fan ak wér. ah di nga ñaanal ànd bi yàlla bu seytaane dugg. ah yàlla na ànd bi jëm si kanam. kii nag moom lañ ko yéene moom. waaw lii yàlla yàlla taxaw ko. yëkkati ko. ba li mu bëgg si li ko président sant. mu dépassé loolu. jërëjëf loolu ci njortu président. jërëjëf di ko ñaanal yàlla gudd fan a wér. si kàttanu yàlla ak yonent bi di ko ñaanal njabootam ak soxnaam yëpp ak doomam yëpp di leen gërëm yéen journaliste yi di leen ñaanal yéen yéen waaw Lamine ak yéen faram gis nañ seen kii ah, man dama gendarmerie rek. jërëjëf waaye loolu moom yenn saa yi day kii. day cenc